waaw mi ngi noonu premier combat ci biir géew bi di dox ci digganteeg caatu waxal ak maaloo bu gunaas maaloo bu gunaas moom ngeen jàkkaarloo caatu waxal moo leen won ginnaaw ar baa ngi leen di wax li si laaj ay si sa baxam pare nañ laaj na mbëri baxam pare nañ caatu waxal day day ñaan ma ngay léemu moom caatu waxal ndeysaan tufli na ci abi bi nee na pare na abi bi sifle na génn seen diggante ndeysaan booba nekk premier combat bi saan ñu ko sifle il est 17 heures maa la bu gunaas moom ngeen jàkkaar lool caatu waxal moo leen woon ginnaaw journée Fouta production la ndeysaan waaye grand combat bi mi dox ci digganteeg Pam Ndoy bu Faas ak Thiatou Daara Fall bu Géeja waaye école de lutte Balla Gaye waaye ñaari xale yi ñu ngi ñu ngi lewtoo dara xewagut eh waxal moom bi mooy premier combat am waaye maa la bëgg bi mooy deuxième combat am. nee naa la ba fi jógee ak ndam la fi jógee moom Malo bu Gunaas waaye ñaari xale yaa ngi noonu di lewtoo ndeysaan at bi baa ngi leen leen leen ku ci nekk yaa ngi déglu sa morom caalo bu caatu waxal moom ngeen jàkkaarloo Malo bu Gunaas at bi atte leen jox leen avertissement verbal waaw si sif la war génn seen diggante diggante Malo bu Gunaas ak Caatu Waxal Caatu Waxal moom ngeen jàkkaarloo waaye Malo bu Gunaas moo leen wan ginnaaw moo tënd boobu noonu benn xaaj bi dagg nañ léegi bi ndeysaan ku ci nekk yaa ngi déglu sa morom tey mbër bu ndaw waaye waa gi waaye gi ne di yëngal fële ndeysaan supporter Caatu Daawda Faal nga yeesal drap maq zone bu lay drapeau Guédiawaye attention ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan caatu waxal maalo bu gunaas ba léegi at bi bi atewaat na leen jox leen avertissement moom maalo bu gunaas caatu waxal jënd benn avertissement ku ci nekk am nga benn avertissement waaye bëri leen xale yi nee naa fay ñu leen dara bu leen avertissement ba nu ko jëlee rek bu leen daggee ngeen yàqu attention bëre leen caalo caatu waxal maa la naa tubb na suuf maa la naa ee eh. attention maa la naa sa kay arrière ko bëgg a génne saako yi ko bëgg a jox troisième avertissement ko bëgg a jox du nga xamee. waaw am na dara de. am na dara ñoom ñaar rek nañ na ki taxawaay mi ngi noonu Malaw Gunaas jël na benn avertissement troisième avertissement at bi si la waa na génn seen diggante waaye waa géej waaye waxal Malaw Gunaas eh ñaari xale yi ñi ngi ku ci nekk yaa ngi jël ci la mbi daan ndeysaan bëri nañ cinq minutes bëri nañ cinq minutes ku ci nekk am nga avertissement Malaw Gounass Malaw Gounass jël na trois avertissement moom Thiatou Waxal am deux avertissement mooy loolu ndeysaan nu ngi noonu deuxième bi daa ba noonu arbitre baa ngi waaye sifle ndeysaan dox ci diggante Malo bu Gunaas ak caatu waxal Malo bu Gunaas caatu waxal arbitre baa ngi waaye sifle waat waaye waaye Lac Rose bi noonu ñëw ndeysaan Lac Rose ñëw na te suba lay bëree suba la war a bëree ndeysaan waaye deret moo foor deret dafa foor deret da ko yëngal laa ilaaha illallah ndeysaan laa mu ci yëngu ndeysaan mi ngi noonu waaye ba léegi ñaari mbir yaa ngi ne arbitre bi sifflé na deuxième bi bi eh, di dox ci diggante Mawla bu Gunaas Caatu eh, waxal lu mu bëgg a dig du ko bëgg a génne saako yi eh, ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan wala bu gunaas caatu waxal attention lu mu bëggaat waxal ay arbitre di bëre leen ñaari mbëri abdoulaye waxal ñoo yëla bëre leen ñaari xale yi seen bëre bi yàgg na yàgg soof na combat yi ndax warul yàggee ndeysaan jox ma combat jox ma combat jox ma combat ay caatu waxal bi may premier combat am bi may premier combat caatu waxal waaye maa la bëgg naa bi may deuxième combat am ah, waaw waaw fii la mën a wane seen boobu ndeysaan gars yi man sawa di leen dëggal attention maa la lu mu bëgg bëri dañoo bëri dañoo bëri am na ñu ne selaw am combat mënuñu ko am ndeysaan waaw waaw ba léegi ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan Malo bu ak Caatu Waxal seen bëre bi yàgg na arbi bi ba doon attention Malo lu mu bëgg Caatu Waxal daa téye loxo bi attention takk na ko takk na ko takk na ko la Caatu waxal attention lan la bëgg eh génne waa naka saako yi génne waa naka saako yi bu amul saa dina jëlaat quatrième avertissement moom Malaw bu Gounass mi ngi noonu ma ne woon ginnaaw Malaw mi ngi noonu jël na jël na quatrième avertissement am quatrième avertissement eh Malaw bu Gunaas Caatu Waxal Malaw essay day attaqué ndax am na quatre avertissement ndeysaan bu amaatee benn avertissement combat eh, ñaari xale yi Caatu Waxal ngay dóor ngay dóor ci Fambaye jàppante nañ ñoom ñaar diggante Caatu Waxal ak Malaw bu Gunaas xale yi nee naa la ñu ngi ci deuxième mi Gunaas am na quatre avertissement moom Caatu Waxal am na deux avertissement kon lamb ji su nii moom Malaw bu Gunaas lay ñàkk par avertissement ñu ngi noonu jàppante ñoom ñaar dèjà di dégloonte attention Malaw la la bëgg Malaw jàppul jàpp bu baax caatu waxal caatu waxal Malaw bu gunaas attention ñaar ñi ngay lewtoo jàppante nañu Malaw ba di génnaat jël cinquième avertissement am attention jaxabal na ko daan na ko laay laay la laa Waxal daan ba toog ci kawam ndeysaan eh xale bi ndeysaan daan na ko jëlee bu rëy bëri na a jeex ndeysaan mu daan ko moom Waxal ndeysaan boobu doon premier combat am am na ndam ndeysaan ci kaw Malo bu Gunaas eh, jëli ba